وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى واليقين إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني وعن سائر مقدميه وخلفائه رضا يعم الجميع السلام عليكم ورحمة الله gannaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala ñaan ko mu wuutuñu ci jëlee ñu ci yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ngërëm suñu wasila ci yàlla mawlaana saydi cheikh ahmed tidiane yi ak mboolem ñu topp ci gannaawam ba bés penc ñu yox mbokk jullit yëpp asalaamu aleykum wa rahmatullah wa tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci téere bu barkel bi ñu koy tuddee jawaahirul maani wa buluuxul amaani min faydi abil abbaas tijaani muy téere boo xam ne suñu sëriñ saydi ali harazim barrad al fasi al maghribi moo ko jàngale ci suñu wasila ci yàlla mawlaana saydi cheikh ahmed tiyaani muy téere boo xam ne li ci yàlla dëxañ ci ay xam-xam jaare ko ci làmmiñu sëriñ bi jéggi na dayo lool fa tabarakallah ñu toll woon nag ci tafasirul qur'aniya yi nga xam ne soob na yàlla sëriñ bi doon ko jàngale fa tabarakallahu ba toll woon ci maanaam sayduna daawuda ak balaam boobu nga xam ne yàlla teg na ko ko ba yàlla ne fa xafarna lahu dalik baal naa ko seenati yaa nag indi ci déggin bu rafet te moo di di tere ñi nga xam ne dañuy tuumal yonte yàlla daawuda ci qadiya boobu yàlla wax ci alquran ne inna hada axi lahu tisun wa tisuuna naaja wa lii naajatun waaxida ñu koy firee ay jigéen sëriñ bi ñaawlu ko torop ne loolu ku respecté woon jullit sax waroo ko ko euh, melal rawatina ku tol ni ab yonent euh, mu ne daawuda dafa fekk martabam ci yàlla tax na ñaaw njort gi mu ñaaw njort ci boppam tax na mu jàpp ne li mu waroon a doon doonu ko mu jooy jéggalu borom bi yàlla itam baal ko ñu ne seen teen la lan la ko yàlla baal mu ne njortam loolu rek la ko yàlla jéggal waaye du leneen comme ni ko suruux yi di jàngalee من وذكر الشيخ رضي الله عنه ما يعضد هذا من الحكايات في آداب أهل الحضرة منها أنه كان السري كان السري السقطي رضي الله عنه ذات يوم جالسا فمد رجله ثم ردها بالعجلة وأخذ يتضرع إلى الله تعالى ويقول لا أعود لمثلها أبدا فقال له بعض الفقهاء wa kaana bi xadrati ma hada laa shay'a alayka aw laa xaraj fa qaala lahu laa ba'sa alayka anta wala shay walfaqihu qaala lahu dalika li anna madda rijli mubaaxun fi sharci walmubaaxu laa mu'aaxadata fii walam yadri anna al-akaabira mutaalabuuna bil-adabi fii kulli waqtin walaw fi n-nisyaan kamaa qaddamnaa nee na loolu yàlla jàppee yonent yàlla daawuda ak comme qadiyatu sayiduna nuux ak ayuba ak yu mel noonu mu la limaloon ba ci sayiduna aadama mi nga xam ne ci coobare yàlla la yà la lekke garab gi waaye gis nga yàlla dalaat na ci kawam naan wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya te ku ne xam ne ne fàtte du bàkkaar ci nit ku simple waaye ab yonente dañ leen koy jàppe mu ne loolu moom moo dal aadama ci mbiru garab gi sëriñ bi dina ko leeral ci façon bu gën a yaatu ci kanam mu ne da ngay xool rek xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabin ñi nga xam ne àgguñu ci yàlla lañuy def mu tudde yiw nitu yàlla yu mag yi wala yonent yi buñ ko defee loolu ci seen niveau bàkkaar lay tudd euh, gis nga rek suñu maam Cheikh Al Hadj Malick mu naan tamawajal baxru baxru zanbi yaa siqati wa innani rabbi xiftu lgarqa yallaahu te gis nga moom dundam yépp ci jaamu yàlla lañ ko xame wax na ci taiya ba ne laqad daa umrun saatan minhu tushara min as-samaa wal ardi ayata dayati sama dund yépp sànk naa ko cànk te goo xam ne nii kenn xamatul kañ laa koy dabu te loolu mag ñi nañu loolu muy mettit lu moom Cheikh Al Hadj ne sànk na dundam mooy ca waalo la woon mooy ba mu jàngee ba mokkal alquran ñibbi si waalo gaaya ñoom dañu tàmm loolu ba tey mu ngi fi sax bu nit jàngee alquran ba pare bàjjanam ak ay bokkam dañ koy lalal ay sëru dënk muy jaabante dale baqara jëm naa di jàng nit ñi sarxole événement bu rëy la woon moom nag yàlla dafa dogaloon Cheikh Hadj Maay mu def ñu defaloon ko loolu muy jaabante di jàng alquran loolu la wax ne temps boobu mu yàq dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu ko yàlla delloo si waatoon temps boobu am na feneen fu mu xaj te ku ne xam ne ne alquran moo gën ci li ñuy jaamoo yàlla waaye noonu mu ko defee woon jàpp na ne loolu pécce xoola te loolu bu ci ñun ñi suñu niveau loolu yiw la xam nga waaye moom Cheikh Alhaj Malick daf ko réccu bu mujj dundam muy bind loolu naan laqad daa amru saatu min tushra min as-samaa wal ardi ay sadaati kon nga gis ne dimension yi bokkul bàkkaar yi muy wax itam ne bu doon géej la dem na ba duusu vague yi di tuuru ndax ay bàkkaar bokkul ak yow bàkkaar yi nga xam ndax moom jaamu yàlla ak jàkka ja ak fanaane naafile lañ ko xamee woon kon yemu tudde bàkkaar du bokk ak sa bos Seydi Ahmed Tidiane nee na lay dëggal loolu mooy xoolal rek sëriñu saqat yi beneen ñu ci yàlla la boo xam ne moom mooy sëriñu imaamul Junaydi imaam Junaydi ku siiw la moom lañ tuddee imaamu Taifa sëriñam ndijaayam la ni nga xamee ne maam alaaj Malick sëriñam mooy ndijaayam imaam Junayd ndijaayam moo doon sëriñam kooku nag dafa mas a toog benn bés di waxtaan ak ay njaboot tàllal tànkam jublu ko penku dafa mel ni rek mel ni kuñ doxe gannaaw xët ko mu tiit rek lemaat tànk yi di jooy naan yàlla maa ngi jéggalu duma ko defati mukk maa ngi jéggalu duma ko defati mukk def naa erreur du ma ko defati mukk di lox mbooloo mi toog jaaxle bokk na ci ay boroomi xam-xam am benn faqir bu nekk waa sëriñ bi looy yuuxu nii ak di jooy naan duma ko defati mu ne xanaa gisoo ma tàllal sama tànk jublu ko penku mu nekk ko mais loolu ci sharia daganu euh, dagan na loolu dara nekku ci nit kay bu toogee ba tànkam metti mu ko neexee mu jublu penku wala soow wala feneen wala feneen mu ne ko kii yow la dul dara mais ndekete moom bi mu tàllalee tànkam ak niveau am euh, yóbbu bi ndar yóbbu bi saalum dafa am benn haatif bu ko ne ahakaza tujaalisul muluk ndax ñàkk teggin gi ngay toog ak buur boo toogoon ak buur wala président de la république te wax na dëgg parce que ku demoon palais de la république président nga toog ak moom janoog moom yóbbu benn tànk ndar bi ci Saloum ah xaw ma audience bi dina arrêté am déedéet waaye ragal naa la nga fa bëgg doo ko mën a am te nit yàlla ñoom seen niveau dafa àgg ci seen cerce bu nekk dafa mel ni ñoom ñu yegg yàlla face à face kon junay di bu demee ba fàtte lool bay tàllal tànkam ñu xatif bi nekk ndax nii ngay toogee buur yi te yow buuru buur yi nga toogal mu mel ni lu mu xamoon la waaye jooy jéggalu mais gis nga boroom xam-xam boobu mu ngi ànkaan dara nekk ci ndax téere yi nañ dagan na xam nga kii aj atte woon ak kon ci téere yi ak ki nga xam ne borom téere yi la janool direct muy yàlla subhanahu wa taala Seydi Ahmada Tijaan nee na dimension xam nga du tolloo nee na loolu gannaaw nag nitu yàlla moom mooy jooy tàllal gu mu tàllal tànk nan duma ko defati ba faw góor googu diiru dundam diiru dundam même biir biir néegam sax daaw fa tàllal ay tànkam te xam naa Seydina Tijaan dafa baax sax di ñu nettali junne ji xaw ma sëriñ waaye moom def na loolu toog naag benn taalibeem ñuy waxtaan ba yàgg kooku tàllal tànkam waxuma penku mais daryaxu imam idris al akbar muy bàmmeelu imam idris al asgar afwan nga xam nit yàlla bu foor la woon moom Seexna Tijaani ku ko fonkoon la ku ko daan ziyaare ji la bi muy doog a ñëw faas daan digle itam ñu fay dem ba ba ko yonent bi tere nag say taalibe buñ ziyaare ci benn wëli bu bokkul ci tariqa mais daan na fa digle moom mas naa toog ak kooku ñuy waxtaan taalibeem boobu mu tàllal ay tànkam jublu ko ci raw rawdu sëriñ bi ci saa si rek sëriñ bi ne ko bankal say tànk te adduban waxtiraaman li dariixi saydi Idris ngir nga xormaale ko moo Mawlaay Idris dama jàpp ne nag kuy yedd taalibeem ci bank ay tànkam bañ koo jublul rawdu nitu yàlla massa kon xibla xibla mooy Euh, qiblatul muslimina te muy kaaba bi te foofu mooy néegu yàlla nga gis ne ki nga xam ne jullit kese la loolu xoolal rek ni mu daganee ci moom waaye xoolal nitu yàlla bi dimension ni mu demee ba mu xaw ko xaramal ci boppam euh, nee na teggin yu kawee yooyu gannaaw nitu yàlla yi nag ñoo ko mën a am massa kon yonent yi wa minha annahu qaala kaana rajulaani bi safinatin kaana axawayni fillah فلما كان ذات يوم رأى واحد منهما حبة طعام ساقطة فرماها في فيه فنهره الآخر وقال له ما هذا التجاسر فأخذ يعتذر إليه بالنسيان والغفلة فلم يقبل عذره وقال له لا أصحب من يغفل عن الحضرة ورمى بنفسه في البحر وتغيب عنه فلما وصل إلى البيت الشريف رآه يطوف fa taallaqa bihi fa qaala lahu lawla al uxuwatu fi llah bi xaqihi lam tarani wa lam usaaxibka fa qaala lahu inni taa'ibun lillah fa qabilahu wa saxibahu fa ida kaanat hadihi al aadaabu fi xaqi awliyaai illahi taala fama baaluka bi safwati illahi min anbiyaai wa rusulihi fa hum awlaa bi mutaalaati al aadaabi wa adami al gafla ba tey sëriñ bi ci xam-xamam bu bari bi te sell te leere mu ngi wax ne pour wane ne dimension yi du benn nee na xoolu benn nitu yàlla boo xam ne dafa mas di aji ji nitu yàlla boobu naka la waaj di aji benn nitu yàlla comme moom xam naa dimension yi tolloowul ne ko dama bëgg a ànd ak yow ci aji ah mu nangul ko ko ñu dugg ci benn euh, gaal di di dem wala benn bato bi ñu àndee noonu xam naa kenn ku ne beru di def zikr waa ji ñaan nitu yàlla bi ne ko naa ànd ak yow gis benn pepp bu doon tey peppu mboq bu wadd ci gaal gi wala benn peppu gerte bu wadd rek waa jooju jël ko for rekk dugal ko ci gémmiñ gi saxami jàllale rek góor gi mel ni ku tiit téeboli bi ne ko da dof maanaam wëli bi mu àndal xanaa danga nga dof yow fit wu nii ak ñeme gu toll nii ndax am nga ko ci xadra yàlla bi maanaam ku ne xam na ne ku ku gis euh, pepp bu wadd lislaam sax day soññe pour nga ormal lekk nga for loolu nga lekk mais nit yàlla boobu dépassé na foofu moom li muy laaj mooy ndax pepp bi dagan na te ñoom dañ jàpp benn tibb bu daganul jaamu yàlla quarante jours lay anéantir léegi moom nan lay sellalee boppam ba ba àgg ci fi mu àgg muy ànd ak koo xam ne am na fit wutal ni gis benn peppu gerte wala peppu mboqo mu di ko dugal ci biir bi te xamul ndax dagan daganul am ko du lekk lu xaram mais nit yàlla bu beccee mera mer Seydi Ahmed yi ba gëddawaa ji ne que bis ni tey suñu ànd fii lay yem mu nekk ko déet déet déet bi déet man maa ngi bàyyi ñëpp ànd ak yow dem aj mu ne ko dooma gisati waaye defe naa nga war a laaj ñaar ñu nekk ci bato kenn ki ne moroom mi sa sama ànd ak yow fii la yem war nga ko laaj fan ngay jaar mais nitu yàlla bi pour tasarruf dafa jékki-jékki rek plongé ci ndox mi disparaître kenn gisatu ko te moo doon orienté ki ci des kooku di jooy jooy yu metti ànd ak bato bi ba dem jidda wàcci dem aji ji yoonu yëpp muy jooy ne man sàggan naa nitu yàlla bu toll nii may sàggan ba mu rëccam ndax nit yàlla yi dañuy naqari deret seen dimension mooy tollu foofu Seydi Ahmed Tidiane ne waa ji aj gi yëpp fu mu dem moom lay wër di wër sëriñam boobu ba bi muy tawaaf nag kaaba gi muy yowmul xajjil akbar ci la gis góor gi nag mooy tawaaf ndax aj moom ku ko aj rek bésu bésu arafa bu maanaam bu paasee yowmul xajjil akbar mu tolloog tabaski ñëpp faw ñu def seen tawaafu farata ku ko deful presque ajo muy tawaaful ifaada sëriñ bi nag ñëw waa ji di di ko xool di ko xool ba seen sëriñam naka la ko seen rek daw raam ci ay tànkam jooy ne ko balmaaq balmaaq dama matul dama matul mu ne ko budul woon suivre bi ma suivre sa pas-pas ci yàlla ak sa bëgg yàlla budul woon loolu du ma la mayee ci position nga man maa gisati ba faw ndax nit yàlla am na ñi ci yàlla may tasarruf même buñ janoog yow mën nga leen bañ a gis ñoom invisible la ñuy nekk mu ne waaye bu dul woon sa pas-pas doo ma gisati waaye yu mel nii kenn du ko ànd ak man xoola moom mu ngi mer ci benn xepp gerte bu ñu lekk rek mais dimension mënu koo weesu mën mënu koo muñ Seydi Ahmed Tidiane nee na nag gannaaw simple nitu yàlla mooy àgg ci dimension bi waaw fama baalu ko bi safwatillahi min anbiyaai wa rusuli lan nga xalaat kon ci nitu maanaam yonent yi nga xam ne ñoo gën fuuf wali yi ñoom kon seen dimension euh, yàlla gën naa kawe noonu wa ida fahimta hada adkuru laka ma waqaa li sayidina adam min hubutihi ila al ardi wa xurujihi min al janna li tata'addaba maa alxadrati wa taalamu ma taqulu qaala sayidina radiallahu anhu fa huwa fi surati muaxada wa fi alxaqiqati lilkamali walistifai walistibai li annahu ahbatahu ila al ardi liyakuna xalifa tasdiqan li qawlihi jalla wa ala inni jaailun fi l ardi xalifa wa adhara fi xikmatihi ma sabaqat bihi machiatuhu wa amma qawluhu wa asa aadamu rabbuhu rabbahu fa gawa fa hiya fi surati la gayr bi dalili annahu subhanahu wa taala dakara cudhrahu bi qawlihi jalla wa ala wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma wal maalumu fi sharci anna annaasi la yuaxaz walakin alkummala min ibadihi laysu ka gayrihim kama qaddamna fa qultu li sayidina radiallahu anhu fa ida kaana muxaalafatuhu laysat bi danbin fa mimma dakara allahu tawbatahu qaala min surati almuxaalafa li annahu fi zahiri damb wa in kaanat fi nafsi alamri laysat bi damb li annaha faalaha naasiyan kama dakara allahu subhanahu fi l aaya wannaasi laa danba alayhi fi sharci wa innama alcitaabu walmuaaxadatu lilgaflati an alaadaabi wa adami alcilmi bilwajhi almatlubi ficlan aw tarkan kama taqaddam wa qad qaala cheikhuna radi allahu anhu iclam anna fi akli aadama min alshajarati aayatan aayatun lilmuctabirin wa uswatun littaa'ibin min idhaari baahiri qudrati illahi wa cajaa'ibi saniici وموافقته لما سبق في مشيئته من اتباع آدم وخلافته بسبب مخالفته وطرد إبليس ولعنه ولعنه وإهانته بعد اصطفائه وتعبه بكثرة عبادته لتعلم أن الشقاوة والسعادة ليستا مرتبطين بالعلل والأسباب وإنما السعيد من سعيد في الأزل والشقي كذلك ولهذا لم تنفع الملعون كثرة الأسباب كثرة الأسباب وذلك أن إبليس لعنه الله لما طرد بسبب مخالفته لأمر ربه لعن وكتب قلم الشقاوة الأبدية عليه وصار من المغضوب عليهم أخذ أخ أخذ يغضب مولاه ويعانده ويتوعد عباده بالغواية ويهدد wa yuqsimu li rabbihi anna hadha alladi karramta alayhi karramta alayya la ughwiyannahu wa dhurriyatahu wa lam azal bihi hatta tatrudahu kama tarattani qaala lahu alcinaaya bi lisaani alxaal inna aadama maxbubun inda allah fi alazal lam tadurruhu almuxaalafatu wa in sadarat sadarat minhu li anna allaha xalaqahu min ajlihi ليظهر فيه بمظاهر ألوهيته وسبق في علمه أنه خليفته في خلقه ومصطفى ومجتبى عنده فأبرزه في ظاهر حكمته على وفق ما أبطن في مشيئته ولو وقع في مخالفته رغما على أنفك يا ملعون وزيادة في طردك وبعدك اذهب فإنك رجيم وإن عليك لعنة wa inna alayka laanata ila yawmi ddin li annaka maxluqun li annaka maxluqun li nafsik wa taabuka kaana li xadik wa shahawatika wa ma raaytuhu fi bidayatika hiya mulaabisun mustaaratun lak wal aslu huwa shaqawatuka wa tarduka wa lidalika xalaqtuka fi bidayatika wa lidalika xalaqtuka wa amma adam fa maxluqun lisaadati alabadiyati wannaam alsarmadiyati walxilaafati aluzma ala jamici albariyati fa shattaana ma bayna man kaana sacidan fi almashiati alazaliyati wa man kaana shaqiyan fiha wa lihada yuqaalu fi almasal man sabaqat lahu alcinaaya lam tadurruhu aljanaaya aw iljinaaya Mawlana Seydi Ahmed Tijaani ci xam-xamam bu bari bi mu ngi dew def ba tey ay tawdixaatam nee na gis nga loolu dal nag nitu yàlla yooyu nga xam ne seen dimension yi du benn moom ngay jàngatee rek xew xew maam aadama ak tabaarakallahu lekk gi mu lekk garab gi nee na maam aadama boo jàppee ne dafa moy yàlla pour ñu génne da dégg ñu ñàkk teggin ñu naan maam aadama vraiment warul woon mooy yàlla parce que bu moyul woon yàlla duñ heure bi àjjana la ñuy juddoo àjjana kenn du fa juddoo àjjana doonul kër goo xam ne dafa am maternité ñu fay juree jur gi mu ngi mën a nekk fii parce que fii mooy monde de l'évolution àjjana lépp a ma mat moo tax ku fa nekk mënoo ëmb mënoo am doom kon aadama moomu sa maam boobu war nga am xorma ci moom parce que bu génnul woon àjjana yow doo juddu nee na kon pour andil la benn explication bu leer boo xamee ne maam aadama maanaam li mu def certes bàkkaar la mais coobare yàlla la nee na li mu def ba wàcc ci suuf ak génn gi mu génn àjjana nee dinaa la ko expliquer li ta ëdd li ta ta ëdd ba maal xadarati pour nga am teggin ci xadara yàlla bi ba bul toog rek topp téere yi di attee lu la neex ba nga xam ne doo yedd aadama ci dara di nga xam ne lékk lépp xet ma yàlla la ak itam xame ci ne yonent dimension dafa fekk duñ leen jéggal dara mais aadama deful loo xam ne nii da nga koy war a mën a tudde bàkkaar dëgg-dëgg nee na réalité bi moo di yàlla da koo tànn d'abord euh, ku yàlla tànn def la yonent moo di yow yaa gën ci mbindeef yi ab yonent moo gën ñëpp mais léeg li nga war a xam pour bañ a yedd aadama mooy yàlla bi mu amee projet pour bind nit waxul ne inni jaailun fil jannati xalifa déedéet yàlla waxul ne dama bëgg bind àjjana ku ma représenté fil ardi la wax kon war ngaa xam ne bu yàlla bindee aadama bu pare dugal ko àjjana war nga amee foofu du destination finale bi du destination final bi إني جاعل في الأرض خليفة فأظهر bi حكمته ما سبقت به مشيئته te moo di yàlla coobare bi mu bëggoon pour bind aadama def ko ci suuf coobare bi moo di yàlla dafa am yéene bind ku ko peupleel suuf ki koy peupleel suuf nag kon bu ko yóbboo àjjana moom yàlla mooy organiser waat beneen sabab bu koy génne àjjana pour indi ci suuf kon boo bëggee ñàkk teggin naan aadama dafa mooy yàlla dangay ñàkk a xam xikma yàlla ak coobareem te ci gannaaw jàngale woon na la lan mooy atu ak xikmatu masiatu mooy coobare gi yàlla nar maanaam décision bi yàlla bëgg pour defar dara xikmatu mooy sagesse bi mu koy jaarale ba def ko ndax yàlla bi mu bëggee bind nit gis nga xikma fi mu jaar mooy dañ ko ëmb après ëmb bi di yokku ba nit ki bi muy juddu yàlla bi mu bindee aadama ci machi am mooy wàcc ko ci suuf waaye gis nga xikma mooy dugal ko àjjana euh, ba pare tere ka fa loo xam ne moom coobareem ajuwul ci mu war a bàyyi loolu ba bi mu defee loolu moo jur ñu wàcc ko Moolay Sidi Ahmed Tiyaani ne kon wax ji wa yàlla wax ne wa asa aadamu rabbuhu rabbahu fa xawaa maam aadama mooy na yàlla xam nga loolu yàlla kenn waxalu ko aadama yàlla ci boppam moo wax ne wa asa mooy na aadam rabbuhu rabbahu boroomam fa xawaa euh, mooy dafay jur beew moo tax wax naa ci benn bayit ña fa jaanibu euh, bi ta euh, bi jumlatil isyaani li annahu yahdi yahdi ila tughyaani fa aadamun lamma asa faqad gawa naudu billahi tibaat alhawa benn qasida bu ma doon def ne na ngeen wattu mbooleem xeetu mooy yàlla parce que mooy yàlla boo gis dafa am euh, benn umu gu ciy nekk mooy yàlla boo gis dafa dafay ànd ak benn umu bu koy topp nee na xoolal le prophète Adam lamma asa ba mooy boromam rek yàlla daf cee teg ne fa xawaa beew na xanaa xamoo mooy yàlla gi nga def quatre-vingts ans ci gannaaw mën na la topp ba bésu tey jii parce que dafa am benn umu bu am ci mooy yàlla daf lay topp yàlla ci yàlla musal ba tax mu ne naawdu billahi tibaatal hawa aadama kon bu yàlla waxee ne mooy na boroomam mu jural ko beew loolu bu mu tax nag nga am fit yow mii di sëtu aadama naan non aadama li mu def gis nga li yàlla wax déedéet ak beneen aaya bi yàlla wax ne wala qad ahidna ila aadama min qablu gis nga man yàlla maa wóolalanteeg yàlla maa wóolalanteeg aadama depuis bi ma ko bindee ne ka aljannata waaye wala taqraba hadi shajara urqul anta wa zawjuka al janna wala taqraba hadi shajara xanaa loolu convention la mais malheureusement yàllaay wax fa nasiya aadama dafa fàtte convention bi walam najid lahu azman fekkuma ci moom farlu gu mu war a mën a respecter suñu convention loolu jur mu génn ko nee na yàlla waxul foofu ne dafa moy mais dafa ne dafa fàtte kon garab gi aadama tayul dem lekk ji ko Euh, daf ko fàtte dafa fàtte ne waxoon nañ ko ko ba mu jural ko mu dem am na beneen aaya bu wax ni iblis moo ko lekkaloo am na beneen ay riwaayaat yu wax ne soxnaam moo ko euh, lekkaloo am na ci ñoo xam sax nee nañ soxna ci boppam moo ko seexal sax foofu waaye maa ngi ci bëgg jàngale rek nay aadama kon euh, au delà de biñ ko teree garab bi maanaam du moom moom la neex rek mu dem par force ne yàlla danga nga ma ko tere damay lekk laa wax déedéet demewul noonu maanaam Adama yàlla daf ko jox excuse ndax dafa ne fa yi vraiment dafa fàtte Adama moo tax ñu tuddee nit insaan mooy fàttekat bi moo tax surtout Adama ba àdduna tukki dañuy fàtte parce que seen maama fàtte euh, nee na seen tiyaan nee na pour wan la justification Adama wal maalumu fi shari an annaas yi laa yuwaaxal nee na ku ne xam ne ne ci sharia ku fàtte kay doo am bàkkaar wax naa rek ci dars bi passé ne nit bu añoon bëccëg maanaam nit weeru koor bu ci añee woon yàpp mbaam xuux ba suur naan sàngara boisson ba àggal euh, man naa bañ a ñu ne waaw loolu nan la mën a nekke ñu ne waaw parce que dafa oor ci digg weeru koor ñu indil ko benn plat tegal ko ko ak boisson bi moom mu fàtte woon ne dafa or xam nga loolu bari na ñu muy dal premier jour koor yi da nga koy fàtte mu fàtte ne dafa or l'islam nee na bu añee ba regg ba naan bi soog a fàttaliku ne dafa or il suffit mu continuer kooram rek kooram wér na benn mazhab la am na benn mazhab yeneen mazhab yu ne day fay comme comme suñu mazhab day fay benn bés rek mais maa ngi bëgg wax ne amul bàkkaar kon xoole gis nga añ na weeru koor te lekk weeru koor xaram mais lan moo tax amul bàkkaar mooy dafa fàtte kon ndeke fàtte rek excuse la yàlla dafa ne aadama dafa fàtte beneen mooy yàpp mbaam xuuf boobu ak boisson boobu mu naan moom dafa toogoon tegoon na yàpp xar la wala yàpp bëy mu lekk ci ba suur euh, naan ci boisson bi ba àggal moom lan moo tax du am foofu bàkkaar ignorance mooy tax yonent bi nee na nit lépp lu mu xamul ci sama xeet kon tayu ko lu mu fàtte ci sama xeet tayu ko lépp luñ la force pour nga def ko ba nga xam mënoo koo ñàkk def mbaa ñu rey la yooyu tayoo ko yooyu kenn du leen bindal keneen ñeenteel mooy ki nelaw ba waxtu bi weesu kooku itam tayul li mu def kon aadama am na excuse yàlla moo waxal boppam ne dafa fàtte léegi ñu laaj seen tiyaan yi lu tax kon mu tudd bàkkaar te moom mu def ko ci fàtte nee na xultu li sayyidina radiyallahu anhu comme ku fàtte kenn du ko bindal bàkkaar waaw lan moo tax yàlla fàtte ba pare maanaam yàlla fàtteloo aadama ba pare jàppe ko bàkkaar ba naan wa asa aadamu rabbu rabba mu ne fa ida kaanat muxaalafatuhu laysat bi danbin fa mimma dakara allahu tawbatahu min surati muxaalafa li annaha fi dahiri danbun fa in kaanat fi nafsi al amri laysat bi danbin li annahu faalahu annaas kama dakar wa annaasi la danba alayhi wa innama al-iqaab wal mu'aaxaza lil gaflati an al-aadab wa adami al-ilmi bil wajhi al-matlub aw tarkan kama taqaddam Seexna Tijaani tontu li mu tontu woon ci gannaaw ci Ayuba ak ci Nuux ak ci qadiyatu Daawuda mooy yonente yàlla da leen di jàppe fàtte ndax loolooy tax yeneen du du mën a niroo ak kudul yonente yàlla day jàppe yonente yi fàtte gis nga yonente yàlla Nuux bi mu fàttee la ko yàlla waxoon ni ko sa ñoñ yëpp dinañ mucc lu dul ñi la weddi moom bi mu gisee kanaan doomam di lab danaan rabbi hada ahli innahu ahli yàlla na ko innahu laysa min ahli mais suul adab bi nuux def moo di laaj gi mu laaj boromam naan kaan innahu min ahli te moom xam na ne ñi ko gëm mooy ñi gëm koosam mais du doon deret moo tax yàlla wax ko wax joo am ne bu doon ci olof tey jànni lay firi innahu laysa min ahli noox dafa mujjee tiitat ba naan allahumma inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa laka bi ilmu comme ni mu weesoo aadama itam fàtte gi mu fàtte donte yàlla moo ko fàtteloo ba mu lekk garab gi li tax muy amaat bàkkaar mooy aadama mu fàtte ak nit surtout aadama mu fàtte bu ñu bëggee yem lan la aadama di amati supériorité ci ay sëtam moo tax fàtteem googu dañ ko koy jàppee parce que dimension bi mu toll ak itam li mu xam parce que nag lu koy yedd def fi ne mag mu toll ni yàlla ne wa ma aadama al asmaa kullaha man maa xamal aadama tur yëpp kon ignorance amati na ci aadama moo tax kon duñ jàppati ne dafa fàtte lu mu defati moo ko tey ndax ku xam lu ne ba pare di def naa non dama ko fàtte woon déedéet duñ ko mën a nangu looloo tax aadama faw ñu dalee ko lool ndax li xam sëtam yi fàtte xamuñu ko mais itam euh, Cheikh na Tijaan yi ba tey jàngalewaat ci xam-xam bu bari bi ne euh, yàlla nag lekk gi mu lekkaloo aadama garab gi ayatun lil mu'tabirin daf ci bëgg a indiwaale itam ay leçon ba àddunay tukki comme ad aadama mooy première créature bi création bi xam nga bu ñu amul ci moom expérience su oubli kon ba addunay tukki ku fàtteeti kenn ñu xam kenn du xam lan mooy sa solution kon yàlla moo ko fi def nattoo ko ko pour mu doon solution pour képp ku ñëwati fàtte dinañ gis sa àtte lay lay doon dinañ xam ne itam nit dafa war a fàtte parce que premier homme bi yàlla bind dafa njëkkoon fàtte mais cheikh nee na beneen bu ñaareel bi mooy wa uswatun lit taibin bahiri eh, eh, min idaari qudratillah yàlla itam daf ci bëgg indi benn exemple pour ku defati bàkkaar à long terme ba addunay tukki nga am conscience bu toll ni nga ñëw jéggalu ci yàlla parce que di nga gis ne sa maam aadama bi mu tooñee yàlla firtirliwul rek dem d'ailleurs nag ci la différence di soog a ñëw bi sëriñ bi bëgg a jàngale yàlla première homme bi mu njëkk bind ci mandoom daf ko moy mais mu jàngal ko nu ñuy tuube mais première création itam bi mu bind mu njëkk a bon da ko da ko moy ba pare fittirlu xanaa ko différence bi ngi noonu nga comme yàlla benn combat bëgg a indi ci adduna adduna bien ak mal ñoo fi war a combattre kon fow kenn ku ne war a am leader leader boobu nag lay organiser mu ne kon aadama xiir bi ko yàlla xiir ci tuub euh, daf ci bëgg a jàngalaale ne ba addunay tukki ku tooñati te am conscience bi aadama am boo ñëwee pare naa pour jéggal la xam nga ku jéggal ku toll ni yonent kon ko dul yonent moo gën a war a yey ndax ñoom ñoo gën a doyadi nee na loolu benn la mais itam wa turida iblis wa laanihi wa ihanatihi baada istifaa'i wa naatihi bi kasrati yi an أن الشقاوة والسعادة laysata laysata murtabitayni bil ilali wal asbab Cheikh Tijaan nee na beneen savoir bi ci yàlla bëgg jàngale mooy dafa bëgg wanaat création bi ñëw yëpp ne jëf du tax a baax ñàkk jëf du taxa bon gis nga bon ak baax muy le bien et ci loxo yàlla la nekk gis nga Iblis yàlla joxe na ci moom exemple mooy moom mag fuuf aadama moo ko dàq jëf lu baax fuuf xolof nee na ku la mag ëppale sagar iblis dund na des million d'années aadama amul te lépp ci jaamu yàlla la ko def benn faux def yàlla dégradé ko humilier ko toroxal ko dàq ko ci xadram boobu benn la nee na aadama gis nga ko iblis existé na ay ati ati at aadama amul ñu xëy xëy bind ko ci devant iblis moom mu defaat puupa moom aadama yàlla tagg ko sar sargal ko tu xiir ko ci tuub euh, magnifier ko nekk sax yemuma ci bàll la mais ba ci say sët ku ma tooñati nii laa leen def xanaa buñ doon wax far am na xanaa feeñ na mais yàlla nee na lim ci jublu moo di pour wane ne kon texe ak texe bi nekkul ci cadre jëf mais mu ngi nekk ci cadre coobare yàlla moo tax sëriñ bi jàngale ci ne wa innama saidu kon man saida fil azal wa shaqiyu kazalik ay fil azal ndekete kon texe nekkul ci activité yooyu def coobare yàlla la démb lay programme ñi texe démb itam lay programme ñi texee bi ndax jëf ju baax rek bu doon tax a texe iblis wax dëgg yàlla mooy jiitu àjjana nee loolu moo tax nag iblis moomu jëf ju bari jooju mu def comme yàlla dafa programmé woon ne du texe dafay texee di non seulement day texee di waaye ku nar a texee di ci sababam nga war a jaare moom yëgoo ne ba àddunay tukki képp ku texee di rek képp ku bon iblis day am ci sa mbon sa pourcentage kon kay moo gën a bon ñëpp ndax ñi bon ni ñu bare kenn ku ne nga war a am pourcentage ci mbonam kon yow yaa gën a bon ñëpp loolu la ci yàlla jublu woon nee na gis nga iblis xoolal rek xëj ma yàlla bi ko yàlla daxee ci xadaram rëbb ko bind ko ci xalima texee di ne yow dangay ngay texee di ba faw boo ko ci ñi yàlla mere moom pour bu confirmer yàlla nekk li nga dogal ci man am na moom ci boppam yàlla la jëkk a mere xam nga loolu bu dul woon coobare yàlla dafa waroon a jooy ndax ku ku yàlla rëbb xas la saaga la ci waxin da waroon jooy raam ci tànk yàlla ne jégal ma nangam nangam mais iblis pour dëggal li yàlla namm ci moom yàlla ci boppam la njëkk ne mais dara mais dara lan la xanaa mu ngi wane ne li yàlla def ci moom mu koy resté ba pare opposé yàlla yemu ci sax Mawlaay Cheikh nee na di tëkku yàlla ci boppam di tëkku yàlla ci ay jaamam man kaan man xam naa ne mënalu ma la dara ndax tu es plus grand mais sa jaam yi bu ma leen jàppee la uxwi yannahum ajmain di lox moom iblis xanaa moom mu ngi confirmer euh, maanaam mu ngi confirmer euh, li yàlla def ci baatinam di di tëkku jaami yàlla yi naan yàlla ma mënul ma la dara man xam naa bu ko mënaloon dara dina ko jël mais di tëkku ay jaamam ba pare naan kan la in karamta alayya la ughwiyannahu wa dhurriyatahu ajma'in yàlla lenn rek laa lay demander nga nga nga récompenser ma force ak puissance moom xam na ne force kon ak puissance mu ngi ci loxo yàlla force bi mooy lan naa gudd fan naa fi mujj naa ëpp doole ñëpp na naa leen gis te duñ ma gis loolu gis nga boo ma ko xasee may jarul nga may yokkal daal ñoom ñëpp dinaa leen écraser maanaam yow est ce que la di ñaan kii ay puissance maanaam di ñaan sa borom pour mu dimbali la ci kàttan ba pare nga koy tëkkul ay jaamam xool googu ñàkk kersa ndekete coobare yàlla lay jéem a doxal ndax yàlla moo war a ut leader boo xam ne leader du mal la pour mu man koo orientel wala désorientel ñi war a yàqu yëpp nee na dañul yàlla di ko yokk puissance di ko gën a rëbb di ko gën a rëbb ba fa tabaarakallahu mu yàqu moom iblis yàqu fas yéene yàq ku nar a yàqu yàlla ñu ci yàlla musal seen tiyaan ne nag ñaar yooyu ma la tegal dama la bëgg a indil benn benn benn benn benn benn tribunal boo xam ne yow yaay àttal sa bopp ci xel ñaari bu dee ñaari accusé lañ fa indi ñaari criminel kenn ki dafa tooñ reconnaître ne tooñ na ne baal ma ñu jekki-jekki maanaam convoi présidentiel moo ko jël si moom convoi présidentiel ngir teral ko ñu bind ko ci journaux yi yóbbu ko rajo président recevoir ko ñu sant ko gërëm ko ba mel ni deful woon erreur kenn ki te ñoom ñaar ñëpp def erreur de kenn ki ñu jàpp ko su mu yëre yi solal ko ko prison di di ko humilier lu xam nga ñaar ñi te ñaar ñëpp def erreur defe bi dikk na kon am na ku président faral ki président faral gis nga ab habillé nañ ko ba mu rafet nee na loolu la yàlla tontu iblis naka aadama mi nga def sa morom fa innahu mahbubun inda allahi fil azal ci sama coobare aadama dama ko bëggal sama bopp boo bëggee noppalu nag bul jàppee aadama aadama aadama mooy nuuru Seydina Muhammad leeru yonent yàlla Muhammad lañ inséré ci aadama kon aadama yonent bi la représente mu ne ko aadama doo leen yem aadama mën naa ko bëggal sama bopp xamoo ne aadama lam tadruhul muxaalafatu wa in sodarat minhu gis nga kii nga def nawle yow iblis yàllaay wax de du sa morom donte def na sax erreur du ko wàññi dara day mel ni poussière bu mu ëf ndax moom ci ësël dañ ko boole woon ci ñi war a manifester les miracles de Dieu ndax xuliqal insaan euh, ajaban yàlla dafa bind nit def ko muy xalifaam ci kaw suuf xalifa boobu nag junj la mooy manifestation wu yàlla te jël lii bi gën a mag yàlla bind mooy nit ba pare mu def ci moom xam-xamam def ko def ci moom xilaafaam tànn ko démb avant mu koy amal mu génne ko nag ci zahir nekk loolu ma inséré ci sa biir ruux yow aadama génnal ci humanité nga wane ko àdduna li fi jakk yëpp ku ko def Hmm? Adama Adama moo ko def ndax ay sëtam a ko def ay sëtam yëpp ñooy ay yonant sëtam yi ñooy aqtaab yi sëtam yi ñooy wëli yi te ñooy ñëpp ñu ngi leen inséré woon ci jëmmi Adama xam nga ni kii du moromu Iblis kon hmm? euh, kon kii du sa moroom ndax man maa ko tànnoon ci sama mbaax donte def na erreur mais du ko wàññi dara rahman ala anfika ya malhud euh, avec malgré yow Iblis donte neexu la waaye loolu la yàlla dogal ma yokkal la nag yow sa toroxte yow iblis ak sa bon ak sori ma demal génnal sama xadara maa ngi lay rëbb ba bés pénc ba ba ngay dugg safara ndax yow bi ma lay bind man mi la bind dama la bindoon pour alag la dama la bindoon donte séenoon naa la nga may julli sa ko wooral mais man xamoon naa li ma xam moo yow doo baax tey doo baax ëllëg gis nga mbaax googu nga niroo woon benn yére boo àbboon la rek waaye yow loolu du sa cosaan wal aslu huwa shaqawatuka wa tarduka sa cosaan moo di man dama la naroon a dàq sama xadra loolu laa programme woon dama la nar a texel wa lidalika xalaqtu ko lii laa la binde woon bi ma lay bind waa ama aadama mi nga def morom nag fa maxluqun li saadati maa ko bind pour texe ba faw wa niami sermadiya fas yéene koo teral ba faw wal xilaafati al uzma ala jamii al bariyati ma def ko muy sama représentant ci mboolem li ma bind xam nga ne kon fa shattaana ma bayna man kaana saidan fi lmachiati l azaliya wa man kaana shaqiya xam nga ñaan ñu bokkuñu ki nga xam ne destin mu ngi ko bind pour mu texe ba faw ak ki nga xam ne destin mu ngi ko bind pour mu texee di ba faw bokkuñu looloo tax ñu wax ci misal ci arab benn exemple ne man sabaqat lahu l inaaya lam tadurruhu l jinaaya gis nga ko yàlla programme ne dangay texe loo def def bàkkaar bàkkaar bi sax da gën a élevé ci yàlla téere yi dañu wax ne bari na ku dugg àjjana def bàkkaar ak fa dugal àjjana laa wax de ñu ne luy loolu mu ne yàlla day nattu nit benn bàkkaar mu di ko jooy di ko mettitlu di ko jooy di ko mettitlu ba mu jural ko mu gën a yokk jaamu yàlla jaamu yàlla nag ku ci dëkk ba dee foo jëm àjjana nga jëm kon kooku xam nga ne bàkkaar moo ko yóbbu àjjana waaye itam bari na koo xam ne dugg na safara yiw moo ko fa yóbbu mooy def dara naw ko nag naw ko ba koo gis deful loolu nga xeeb ko di xeeb ba xeeb nitub yàlla mu jural la alkane ba nga dem safara kooku yiw ko yóbbu safara iblis nag xam nga lu ko yóbbu safara yiw yàgg na jaamu yàlla ba yàlla bind benn espèce mu ne ana xayrun minhu kii duma moroomam man non seulement sax waxuma li ma jaamu yàlla yëpp mais man sama cosaan xalaqtanii min naar wa xalaqtahu min tiin ci la alak boppam looloo tax yeneen yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam tagg nit ci jëfam yu sew sew bu yéeme la te nit ñi dañ fay fàtte diw du jóge jàkk ja du tagga kurus loolu mandargala ci dem àjjana mais yóbbuwul nit àjjana ndax li tax du yóbbu nit àjjana da dul xam ndax dina ci dee wala déet te yàlla boo ko jaamu woon quatre-vingt-dix-neuf ans weddi ko ci at mu mujj bi safara nga jëm garante amu ci ndax inna allah haramaha alal kafirin te bari na ku ñuy rocci sa ngëm fekk yaa ngi ci sukuraatu dee xam nga bari na ku ñuy jullee ci jàkk ja naan jullit piir la woon fekk naafiq piir la mais doo ko yëg te yàlla bi ko yëg itam du ko wax kenn ñu dëj ko dëj bu rëy mais boo demee fa fañ koy loger dara du baax moo tax dañu wax ne pas-pas yàlla rek ko xam ndax bu doon acte rek la dafa bari lu nit di def ay act mujje safara maanaam acte yu baax mujje safara loolu moo dal iblis ak aadama aadama xoolal li mu inauguré existence am mooy mooy yàlla ci zahir ku yàlla baax baax la ci aadama la koy tànne xoola iblis li mu inauguré existence am yëpp mooy jaamu yàlla waaye mu ko tëje ci mooy yàlla gis nga ku yàlla baax le eh, bon le yàlla dalay boole iblis mu ne wa min al jaari ala alsinati al aamati al mahbubu laysa lahu uyub fa aadama labisa taaja al xilaafati bi sababi al muxaalafa wa iblis labisa xilcata alchaqaawati bi sababi al ibaada maa altardi wallacni walxizlaani walxirmaani walxizyi wannakaal wa uciddat lahu daaru lhawaan walcadaabi walgadabi maqarran lilxuluudi fiiha bizallatin waaxida wa hiya ibaanatuhu an alsujuudi fa subhaana almutasarrifu fi alcibaadi bima shaa fa min dalika alwaqt saara iblisu madharan lilgawaayati waldalaalati walshaqaa walbucdi walxusraani walcinaadi walgadabi walfasaadi walzaygi walbuhtaan wa anwaaci alcisyaani walkufri walbaatil wa muxaalafati rabbihi fi kulli ma yanhaa canhu aw ya'mur bih kama kaana sayida alwujuudi sallallahu alayhi wa sallam mazharan lil hidayati wat tawfiqi was saadati wal qurbi ila allahi war ribhi wal inqiyaadi war rida was salaahi war rushdi was sidqi wa anwaaci taacaati wal iimaani wal xaqi wal imtisaali li amri llah wa jamiici wujuuhi taqarrubaati wa jimaaci alxayraati fa haadaa fa humaa fi caalami alxikmati caynaani mutaqaabilataani fi gaayati almudaadati wattanaafii wa amma binnadri lilmachiati fa laysa lahuma cheyun min dawatihima wa lihada qala sallallahu alayhi wa sallam bu'istu daa'iyan wa laysa li min alhidayati chey wa bu'itha iblisu daa'iyan wa laysa lahu min alghiwayati chey wa ma dakarnahu min almadharayni fa huwa fi lxikmati zahir wa amma fi lmachiati fa iblisu far'un ala alhaqiqa ala ayni alhaqiqati almuhammadiya li'annaha hiya alaslu fi kulli madhar wa fi kulli ma yufaadu min alwujudi bi asriha fardan fardan intaha ma amlahu alayna sayyiduna radiyallahu anhu ala abi abdillah sayyidi muhammadin al-mishri wa min imlaai alayna xafida allahu wa ala Mawlana Seydi Ahmed Tidiane nag nee na pour clôturer nag ñaar ñii muy le bien et le te kenn ku ne am parrain nee na loolu dafay confirmer tiit gi jaam bi war ndax yaa ngi jullee ko woor mais xamoo ba tey sa pare kan la ci ñaar ñii ndax bu doon jëf rek iblis moo la gënoon a jëf te gis nga fi mu mujje mu ne te loolu moom la arab yi faral di wax ne al mahbubu laysa lahu uyub aw ma lahu uyub cadre aadama lay wax gis nga ko yàlla bëgg du sikk ku nit ku ne xam na ne sax boo bëggoon sa soxna wala sa xarit wala sa sëriñ sikk boo dégg ñu wax ko yow histoire lay doon ci yow donte xëy na mën ngaa xam ne sax dëgg la yow daal vraiment sa waa ji baax na trop mais day nan te yow nga xam ne day nan mais yow loo ci summee sa mbuba ne da xeex boo ma ko waxatee te pourtant xam nga ne day nan mais nit boo ko soppee doo bëgg a gis sikkam aadama yàlla da koo sopp moo tax de mënul nangu sikkam d'ailleurs moo dal doomu aadama yépp gis nga nit li muy def ci ay bàkkaar bu ko yàlla toppoon xam nga ne du dem àjjana du dëgg malaaka benn benn faux pas bu ko defee yàlla dégradé gis nga Haarut ak Maarut te malaaka lañu woon waaye benn faux pas lañ def ñu dégradé leen kon ndekete nit daal moom la yàlla euh, faral euh, aadama yàlla mu ngi ko sol solal taajal xilaafat yi mooy couronne couronne bi nga xam ne moom la représenté yàlla Cheikh Tijaan nee na ci sababu lan ci sababu mooy yàlla lañ ko solal mës nga gis ku ñuy couronné koo xam ne nii euh, dafa dafa détruire loi yi ba pare hmm? mooy ki ma wax tribunal jóge tribunal ñu waroon la yóbbu kaso ñu boole la convoi bi nga dem pare de la république nit daawul tooñ ba pare di am lool de aadama kon ca ësal la ko yàlla bëggoon moo tax même bi mu tooñee ci la ko yàlla teg ci chaise xilaafa mu ne iblis xoolal rek yàlla mu ngi ko solal yëre toroxte ak dàq yëre bi xam nga yëre bi lan la yërëb jaamu yàlla manaam da doon jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba yàlla waroon koo korone ñu toroxal ko coobare yàlla la mu ne bari na ku naan iblis iblis mën la teeyal li mu jaamu yàlla defagoo ko bu jëf ju baax doon tax a baax mu gën laa baax nee na iblis yàlla mooy comme da koo bind ngir texee di moom ci sababu jaamu yàlla nit ku ne dafay am lu ñu tudde montor Hmm? Euh, fi ngay yéegee ba muy escalier bi nga yéeg ba dekk li nga dekk aadama escalier bi mu yéeg li ñuy tudde rampe ba doon xalifa yàlla ci suuf xam nga mooy lan mooy yàlla mooy escalier bi mu yéeg ba doon xalifa yàlla ci kaw suuf xalifatullahi fil ardi Seydi Ahmed Tidiane nee Iblis échelle bi mu yéeg ba doon noonu yàlla bi gën a kawe ci li yàlla am mooy jaamu yàlla ñoom échelle lu jaamu yàlla la doon yéeg yéeg ba àgg àgg toro loolu ki kéemal lii de ku mu yerul yeddul nee na iblis yàlla nga ko toroxal dàq ko euh, euh, euh, xañ ko li mu waroon a am humilier ko duma ko ba pare di ko tëkkoo kërug torox te ak ay duma ak mer ak benn demeure boo xam ne fa sax ba faw ci toroxte ak humiliation te lenn rek moo ko sababloo mooy bañ gu mu bañ a sujootal aadama xam nga aadama la bañ a mais bañu la sujootal yàlla ñu bari loolu lañ xamul iblis ñaata million d'années muy sujootal yàlla mais aadama la doon bañ a sujootal mais aadama moomu bu ko bañee sujootal itam indirectement yàlla la ko bañal parce que yàlla a digle sujoot bi euh, nee na kon seen tiyaay nee na xoola benn sujoot la bañ mu jural ko lii yëpp ak million yu mu jaamoo yàlla nee na kon tuddal yu borom bi nga xam ne mooy soppi ku ko neex à tout tey nga baax waaye xamoo suba nooy mel tey nga yiw xamoo suba nooy mel tiital nee na depuis nag loor bañ googu mu bañ benn sujjóot te def nangami millions sujjóot tax na yàlla jéppi ko ba def ko waxuma sax dàq ka waaye saara mazharan lil xawaayati moom la mujje def muy représentant wu bon ak riir ak ku yàlla nara a texee ak ku yàlla nara a soril xadram ak ku yàlla nara pertal ak ku dëgër bopp ba yàlla nar koo dàq ak ku yàlla mere ak ku nara doon ku yàq ba àdduna tukki ak ku nara a beew ak koo xam ne nii ci ay njuuj njaaj ngay dëkk ci gàttal daal ak mbooleem xeetu moy yàlla yi ak képp koo xam ne nar nga doon mécréant weddi yàlla ak ku nar a yëngu ci ay fen ak yu mel noonu ak ay tabaarakallah wuruj ak escroquerie ak mooy yàlla ñooñu ñëpp iblis mooy seen patron bu ma nee mooy seen patron mooy moo leen sut ñoom ñëpp xam nga lu mu leen sute ci benn sujet bu mu bañ a mais ñii nga xam ne dañoo bon seen diiru dund ñoom dund nañ soixante-dix ans mosuñoo def lu baax xam nga ne ñooñu mosuñoo julli mosuñoo wor ñaata million rakk lañu bañ Iblis nag benn sujjóot rek la bañ doonaat façon ñële nee na itam de l'autre côté le prophète Muhammad xanaa bii nag waxatul aadama moo Moulaye Sidi Ahmed Tidiane tuddul aadama fii dafa ne yonent yàlla Muhammad itam gis nga euh, topp gi mu topp ndigalu boroomam ndax moom mooy leer gi nekk ci aadama ci la nekkee patron wu képp kuy jub ak këpp ku yàlla bëgg ku yàlla nar a texel ak ku nar ku nar a jege yàlla ak ku yàlla nara a fay ak ku nara womatul yàlla ak ku yàlla nar a bég ci moom ak képp ku baax ku nar a jub ku nar dëggu ak mboolem ku nar a ci xeetu mboolem jaamu yàlla yi ak képp ku nar gëm yàlla gëm gu dëggu ak képp ku nekk ci dëgg ak képp ku nar a jëfe ndigalal yàlla ak mbooleem xeetu jaamu yàlla yiy jegel nit yàlla ak mbooleem xeetu mbaax mbaax yi kon les biens avec s ñooñ ñëpp yent yàlla muhammad sallallahu alayhi ñoom la yàlla def ñuy pat muy patron wu ñooñu xanaa kon opposition moom commencé naa am opposition depuis kon ci ësal la amee moo tax ku koy bañ fii wala kuy bañ noonu da ngay nax sa bopp xanaa ñaari courant taxaw na nag ci xadra yàlla te boobu àdduna ñëw guj mooy courant wu bien ak courant wu mal mais nee na courant wu bien ak courant wu mal nee na buñ koy tudd naan bii mooy bii bii mooy bii bii mooy plus bii mooy moins nee na na nga xam ne fii aalamil xikmati maanaam ci coobare yàlla ak xereñu yàlla la yàlla créé euh, champ de bataille boobu pour bien ak mal commencer xeex ba nga xam ne ñoom ñaar ñëpp ay opposé lañ sens opposé lañ li baax ci mal moo bon ci bien li bien ci euh, bien moo mal ci mal loolu mooy xikma yàlla bi loolu sagesse am mais loolu ci coobare yàlla la euh, am xere ñu yàlla la mais boo demee nag ci masiha muy coobare yàlla bi nga xam ni muy jëmmi yàlla ji seen tiyaan nee na ñaar amu fa benn rek a fa am ñu ne ko ah mu ne du ñaar de boo demee ci jëmmi yàlla maanaam nga dellu ci l'originalité de Dieu foofu lenn moo fa am mooy xaqiqatul muhammadiya la réalité muhammadienne foofu du ñaar benn rek la yàlla Euh, lenn la bind mooy yonent bi yonent bi moo am partie bu kawe ak bu ci suuf partie bi kawe mooy tout ce qui est bien tout euh, bi ci suuf mooy tout ce qui est mal loolu moo tax yonent bi wax na ci xadis sax ne bàyyi leen xel te xam ne li xew yëpp coobare yàlla la gis nga iblis mii ngeen ree yàlla moo ko yónni pour mu détruire nit ñi waaye njuba di newul ci loxoom neex naa gëm xam nga ne iblis bu njuba di nekkoon ci loxoom du nangu ko jub ci àdduna kon feeñuwaayu yàlla rek la kon iblis feeñuwaayu yàlla la ci saxatullahi wa xadabuhu mais du caaginu moom ci boppam benn jëmma ju taxaw la di opposé yàlla déedéet feeñuwaay la rek kon nag ñekk ña ca tollu xam nañ ko nee itam man itam feeñuwaayu yàlla laa ci baax waaye mbaax nekkul sama loxo damay woote rek ci mbaax waaye mun munumaa jubal kenn yàlla moo nekk innaka laa tahdi man ahbabta xam nga ne yonent bu mënoon a jubal kenn baayam abi taalib li mu daj ci moom wax dëgg yàlla dina ko jox lislaam bu doon lu ñuy maye la mu jox ko ko waaye mënu ko kon ndeke iblis di ko yedd ci mbonam wala di tàgge yonent yàlla muhammad ci mbaaxam tey yooyu yëpp coobare yàlla la léegi nag yàlla bi mu ko bëggee mu utal ko ay caniveau yoo xam ne ci lay doxe caniveau yooyu mooy xikma bi mooy ku yàlla bëgg nga bon ci coobaram dina fexe ba booleel ak iblis ku yàlla bëgg nga baax ci coobaram dina fexe ba booleel ak yonte yàlla muhammad waaye coobare gi moom kon fan la ne ci iblis la wala ci yonent bi Cheikh Tijaan nee ci yàlla la kon ku jub rek yàlla la ku jubali yàlla la waaye buñ ne iblis buñ ne muhammad moo tax euh, nit kuy ba dóor dënnam naan bu bu dul woon man dooleem jub bu dul woon man doo leen am xam-xam généralement ku dëkk ci loolu bala ngaa dee yàlla dàq la ci xadra parce que ananiyatu boobu xewul ci xadra yàlla kon coobare yàlla dañ jàpp ne iblis benn parti la rek ci leeru yonent yàlla muhammad ci cadre bu lëndëm bi ko pour yàlla nara euh, daaneel dana la bàyyeeg iblis ci coobareem mu daaneel la képp ku yàlla nar a jubal itam dina la bàyyi originalité leeru yeneen yonent yàlla Muhammad mu jubal la waaw damay laaj ndax euh, ndax thèse bi rafetul torop hmm? xam nga Cheikh Tijaan yi mi yare nii njabootam tax na leer gi yàgg ci seen dënn ba du ñu gis ku ku juba di mukk di la reetaan coobare yàlla rek la ñu gis yow waaye itam duñu jub mukk itam ba naw leen naw ko ndax coobare yàlla ñu gis te loolu moo dëggal soppeem bi di taalibeem Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu toog ci zaawiya bi ci Tiwaawan di waxtaan benn waa joo xam ne melokaanam rafetul ñëw di perturber di perturber dafa naan ba yaram bi tàng di perturber mag ñi am ñu tëb dug pour dóor kooku wala dàq ko parce que jàpp nañ ne eh, humiliation lay def te defe naa loolu mu ngi am ba tey mbooloo moo dem dina am ñu mel noonu ñu fa ñëw di perturber mag ñi bañ bëggee dem Seydi Hadji Malick ne leen taxaw leen taxaw leen ñu taxaw mu ne loo bëgg ñu ne gisoo kii li muy wax li muy nàngam li muy nàngam mu ne ah boo leen ma joxee ñaari tontu de danaa leen bàyyi ngeen def lu ngeen bëgg a def lii suñu bàyyi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu moo ko nettali nee na mu ne bu dee man man ngeen ma warlul yéen ñii ci jàkk ji ne ndax yàlla manul kenn ci yéen balaa déwén mu melal mu melal la nii waa ji mel kenn moo ma mën a waatal fii ne daal balaa déwén yàlla mënulaa melal comme ni waa ji mel ñu ne ah, kenn mënu koo waat mu ne ñaareel bi mooy kan ci yéen moo ma mën a warlul ne waa ji balaa déwén yàlla mënu koo soppi ba mu ñëwaat toog ci jàkk ji mel ni yéen mag ñu ne ko ah loolu de kenn mënu koo wat ndax ñoom ñooñ toog ci jàkka ji ci bari itam ci leneen lañ nekkoon avant loolu mu ne nag comme ñaar yooyu mënagu leen ma ko war lool bàyyi leen waa ji ak boroomam téere yi nee nañu xaw ma ma Abdou nee na bi mu demee xam naa dafa dafa wuri xam nga scénario yooyu bu ñu la ko nettalee après loorus nee nañu waa ji dañ ko koo wax rek mu jooy defaat demi tour ñëw ci Seydil Hadj Malick ci suba gëpp xam naa foogoon nañ ne ñëkk a séen foogoon nañ la mu defoon démb la bëgg a defaat mu ñëw raam ne sëriñ bi dama bëggoon tuub ñëw jàng ci daara ji maab du na nekk na ci daara ji ba si xaj may may ko werd mu nekk fa di jàng alquran ba moo mujjee doon bilaalu jàkk ji ba ni mu faatoo da doon nodd kooku doon na luñ doonul ndax ñoom ñëpp doonuñu noddkat hmm? kon soo baree yàlla boo ko xamee dina jafee ci ngay eh, maanaam détruire nit ci njubam wala ndëg-ndëgem xam-xam bu leer bi Seydi Ahmed Tiani moo ko jàngal Seydi Ali Seydi Mouhamadul Misri nee na man Ali Harazim ma recopier ko moom nga gis léegi ma bind ko yàlla na yàlla fayal ñu ñaar ñooñu ñëpp ba tey mu ne wa sami'tuhu yaqulu radiyallahu anhu inna nubuwata sayidina adam tuxazu min mad mad mudmani al ayati la fi zahiriha qultu lahu wal ahadisu saxiha hal fiha ma yadullu ala nubuwati am la qaal innama ruwiya an sayidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna sayidana aadama nazalat alayhi saxifatu lxurufi wa fiha tisatun wa ishruna xarfan qaala lahu bacdu saxaaba inna innaha thamaniyatu wa ishrun qaala sallallahu alayhi wa sallam bal tisatun wa ishrun qaala saxaabi bi laami l alif qaala lahu naam yaani anna laama al alif murakkabun min xarfayn ثم قال الشيخ رضي الله عنه إن نبوة سيدنا آدم تؤخذ من لفظ الخلافة لأن من استخلفه الحق لا بد أن يكون فيه معنى ما هو ما من مستخلف وهو احتواؤه على جميع الأسماء الكونية والإلهية التي بها نظام الكون وقوامه كما قال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعلمه بهذه الأسماء فرع من الصديقية ولا ولكن الفرع هنا أعلى من المتفرع عنه والصديقية لا تكون إلا عن أحكام التكليف وال والأحكام التكليفية لا تكون ناشئة إلا عن أخبار نبوية والأخبار النبوية لا تكون إلا من الله لبعض أنبيائه أو من نبي لبعض أتباعه وسيدنا آدم ثبت له جميع ما ذكر من الخلافة والصديقة وليس قبله نبي fa sabata annahu nabiyun alayhi salatu wasalaam wasalaam wa tarkibu hada shakl maalumun liman yaqiluhu wa kadalika ayatun qawlihi taala fa imma an yatinakum minni hudan bada qawlihi ihbitu fa inna alhidayata la takuna min allahi illa liman arada an yakuna haadiyan mahdiyan hada la yakunu illa nabiyan aw waarisa nabi wa sayiduna adam lam yaris nabiyan fa sabata annahu nabi fa radiya allahu an cheikhina ma axwasahu an ilmaani alxaamida allati lam yasbiq biha ahad intaha min ala min imlaihi ala muhibina sayidi mohamadu almisri wa bi imlaihi alayna katabtuhu saydi saydi ahmad atiyaani di yeggali ba tey ci mbiru aadama beneen facette boo xam ne da nga dul xam moom ban façon nit la moom cheikhna ahmad atiyaani ndax xam-xamam bu bari ba tey waxul ci aadama mbiru baatin ndax bi mu naan kuntu waliyan wa aadamu baynal maa i wattin kon xam na ci aadama sax lu ëppali waaye daf la ci bëgg a jàngal rek loo xam ne doo ko mën a weddi Seydi Mouhamadul Misri bi nee na mas naa dégg Seydina Ahmada Tiyaani di jàngale ci xam-xam bu rëy bi xam nga benn énigme dafa am aadama ba fii may wax ak yow amul benn aaya alquran bu la mën a wax ne yonent la inni jaalul fil ardi xalifa rek la mais xalifa bokkul ak nabi ci min xaysu lafz ndax dangay ngay dégg yoon xalifatullahi fil ard te léeg-léeg ñu wax ko koo xam ne du yonent kon aadama lan moo mën a justifier ne aadama yonent la gisuñu ko wala qad arsalna aadama ila qawmihi yàlla wax na ko déedéet kon aadama amul fenn fuy justifier ne moom yonent la seen tiyaan effectivement amul benn aaya bu jàngale ne Adama ab yonent la mais li ñuy confirmel ne Adama yonent la moom Cheikh xam ne Adama yonent la waaye daf ko bëgg a indi littérairement moo di dañ koy dégg ci aaya yi yàlla dafa wax ay wax Adama yoo xam ne nii euh, ku dul yonent maanaam duñ la ko wax wala même boo dul yonent yow da nga war a topp ci yonent nee na benn xadis moom wéral na ne Adama yonent la mooy yonent yàlla Muhammad moo wax ci xadis bu wér ne yàlla dafa jox aadama benn feuille feuille boo xam ne nii vingt neuf lettres ñoo ci nekk lettres yooyu yàlla ne ko yow aadama jëlal lettres yooyu nga di ko jëfandikoo ak say sët ba àddunay tukki muy les vingt neuf lettres alphabet ñu ne yonent yàlla Muhammad ndax moom miy wax yu wax ji xam nga jàngul woon ummi la saxaabe bi dabaatal ko nekk déedéet du vingt neuf vingt huit la vingt huit lettres moo am eh, abajada ba mu jeex mu ne ko noonoo xam naa kon français yi dañoo perdre ñaari lettres eh, moo tax ba tey amuñu vingt huit yooyu ñoom ñoom am vingt six mooy ra ra ci boppam dañ koy tuddee ra mooy ra bi ñuy rouler te pourtant ñaari lettres la ra dafa am ra am <laughs> perte nañ ko ak beneen ba kon ñoom saxaaba yi ne ko de da nga du vingt huit vingt neuf la euh, xaw du vingt neuf vingt huit la yeneen ci bi ne xam naa li may wax xam naa li may wax ma ne yàlla dafa jox laa wax aadama benn feuille boo xam ne vingt neuf lettres ñoo ci nekk am benn saxaabi yi nekk ah fàtte naa ko kon di laamil alif vingt huit yi lañuy la ñuy defaale laamul alif laamul alif moom la olof di wax lama liif lama liif verbe maanaam lettre composé la ñaari lettre la laam la ak alif yenent bi nekk voilà <laughs> ndax benn lettre bi gis naa dafa xaw a niroo ak beneen bi maanaam lettre yi ay lettre lumière la mu la yenent bi kuy bàkkoo naan jàngul jàngul man da may def kaa moom moom moom jàngul day gis leer yi lettres yi da leen gis nii mu nekk leer mu ne kon boo ci dollee laamul alif tuhibbu jamaal allahi jalla jalaala loolu noonu mooy laamul alif laam la bu ñu dollee beneen alif mais lettre la ci boppam moo tax mag ñi di ko jàngalee la ma liif mooy euh, plus vingt huit kon muy vingt neuf seen tiyaan yi nee na loolu liñ ciy dégge mooy aadama bu ko yàlla joxee ay lettre euh, kon dafa yegg ci martaba yàlla di ko jàngal direct defe naa loolu la yonent am nee beneen bu ñaareel bi Cheikh Tijaan nee na li ñuy xamal ne aadama yonent la mooy baatu yàlla wax ji mu ko wax ne ko indi inni jaa'ilun fil ardi xalifa nee na xalifa dëgg la ku dul yonent dina nekk xalifa mais xalifatullahi fil ardi boo ko déggee mooy kuy représenté yàlla mi mu fi wutu dëggaloo dëgg waaye yàlla nag boo koy wuutu est-ce moom warula wax moom consigne yi nga ko war a wuutoo hmm? nee na comme wér na ne aadama xalifa la xalifa yàlla la te ki mu war a wuutu kon sûrement am na relation boo xam ne dina ko wax li mu koy wuutoo léegi nag nee na loolu ñaar rek la mën a doon mooy ab yonent moom mu doon yonent direct yàlla wax ko nan la koy wuutoo wala yàlla yónni ab yonent ne ko waxal kii ni muy nekkee sama xalifa la wér na nee te yàlla dafa dogal création bi Adama ci jiitu kon xam nga dalil xam nga kon yàlla mosul yónni benn yonent buy wax aadama nan la war a nekkee xalifa yàlla lii sëriñ bi mu ngi jàngale lii bayaan la tudd bayaan ak balaaxa loolu lañ tuddee tarkiibu shakl Seexna Tijaan da ko maîtriser woon ba nga xam ne xam-xamu mathématique la ci wàllu science islamique mooy dangay boole lii un plus un égal Seexna Tijaan noonu la daan def aay dina génne mafaahim ay déggin yoo xam ne doo xam fu mu ko jëlee te day jël aaya bi ne lii pour mu mën a am lii am lii pour mu man a am lii mooy am maanaam ba mel ni kuy tabax bâtiment ci aaya yi ak xadis yi dina tabax bâtiment boo xam ne day yàtt fii dugal bii dugal fii dugal fii maanaam kon aadama xalifa yàlla la yàlla yàlla moo ko waxal boppam te xalifa yàlla ku xanaa boo ne woon sax diw demal wutuma fële ki ngay yabal di nga ko wax la lay wutoo kon ñaar mooy mën a am aadama ci boppam moom lañ wax nan lañ koy wutoo te kon bu boobaa yonent lay doon wala boog yàlla envoyé benn yonent comme ni mu defoon jaaluuta ak taaluuta yabal benn ma ne inna allah baasa lakum malikan kooku ab yonent boo ko wax te yàlla dafa dogal aadama kenn jiitu ko comme kenn jiitu ko benn yonent bu war a mën a ñëw nankaan yàlla nee na na nga def lii amul seena tiyaan nee na beneen bu ñaareel bi yàlla waxaat na ne ibitu mina wàcci leen bi e, ci àjjana mais daf ci teg ne fa imma yatiyannakum minni hudan bés boo leen toogee ba njub dikkal leen jóge ci man rek fa man tabia hudaaya ku topp sama njub falaa yadil e, e, wala yasqa ba mu jeex yàlla ne aadama demal yow ak sa soxna ak iblis ngeen dem ci àdduna boo leen fa toogee nag ba ma envoyé leen fa sa sama njub euh, képp ko toppul njub gi dinaa la duma may laaj léegi kan la yàlla yónniwaat ci aadama cheikh moo koy laaj xam nga yónniwul benn yonent kon njub gi njub gi ko yàlla diggoon nekk dinaa la ko envoyé kon kan la ko jox moom ci boppam seen nee na da koy dégg itam ci aaya bi nee na kon fa innal hidayatu la takunu illaa min allah ku ne xam na ne nit du jubal boppam kon njub gi aadama war a jub ci yàlla la jóge te njub googu yàlla du ko jox lu dul nit kuy jubale moo xam nag yonent la wala ku donn yonent te comme avant aadama kenn ab yonent amul kon kenn mënul donn yonent kon aadama ci boppam mooy doon yonent bi moom wala dëgg mu ngi mel ni nga dénk nit ba euh, maanaam benn benn bàgg wurus jama ne ko téel ma ko damay dugg fii jàpp mu ne tegal foofu ah yow nga génne gisoo ko koo koy laaj ah xam nga bu nag boo ne ko ana li ma fi tegoon nga ah man gisuma ko ah gisuma ko ah du la ci génne aadama bu fekkee moom la yàlla wax ne eh, njub dina ñëw te ba tey yëga koo yonante bu ñu yónni bu boo xam ne moo ñëw indil aadama njub gi mooy moom moo amee njub gi kon moom mooy yonante bi kon loolu Cheikh Tijaani tarkibu shakl la boo xam ne moom la jàngale ci tabaarakallahu aaya bi moom nag xam-xamam yàlla dafa dogal wax dëgg yàlla dafa sore sore sori ba kenn xamul lu mu toll ndax madaaminul aayaat yi ak ahadis yi lay indi ndax bi mu la won indilee hadis bi nga xam ne fëy bu yàlla jox aadama defe naa loolu lañu defal Moussa ci tawrat Euh, axadal alwaax ay ay feuille mu ay ay ay lawxu yu yàlla bind jox ka Moussa loolu moo amoon aadama mais man nga ne loolu xadis la te xëy na sax wérul wala nàngam moom mu indil la nag aay yi aay yi gis nga madaamin yi contenu wu aay yi moo lay xamal ne aadama yonent la parce benn bu nekk. Euh, ab yonent moo ko war a def wala ku donn yonent te comme aadama moo jiitu ci nit ñi kon donnul benn yonent kon moom ci boppam mooy yonent bi yal na yàlla fayal ñu sëriñ bi Mawlana Seydi Ahmed Tiyaani radiyallahu anhu may ñu ay dégg ak topp xam nga euh, li ko sëriñ Cheikh Ahmed Tiyaani si al maktum waxoon fa ka annaka al furqaanu fi ijaazihi fa an wa fi l idaahi lil furqaani yow Cheikhna Ahmed Tidiane da nga niroog alquran ci ni mu jommalee nit ñi ndax alquran ba tey kenn mënula indi téere bu mel ni moom yow Cheikhna Tidiane itam wër naa ba sonn waaye ñoo gis sëriñ bu déggee alquran xame alquran yéeme ci tarbiya ba mel ni yow yàlla na yàlla may ñu nag ñu muur loo leeram googu dars boobu foofu lañ koy yem ne hada huwa tawfiqu min allah wassalaamu aleykum wa rahmatullah